yu bëri dañuy jàpp ni. post yooyu xaalis la alors que yenn saa fi ngay nekk mun na. sur le plan financier Khadim wax nga sa relation ak euh, Boun Abdallah Dionne. Mhm. léegi lan mooy sa relation ak Ousmane Sonko lan mooy sa relation ak euh, Bassirou Diomaye fay ba li nga bañal Mohamed Boun Abdallah Dionne nga nangul leen ko. en fait c' que Ousmane Sonko la relation était juste que dañ koy jaay doole jaay doole gi metti ba ñëpp bàyyi ko. ñëpp bàyyi ko c'est-à-dire que ñëpp wut raison yu parfois raison yu fallacieuses bàyyi ko. d'accord mais mais Khadim yaa ngi wax jaay doole boobu léegi est-ce que mën nga ma wax lan mooy jaay doole bi. mais fekk nit mu taxaw nga ne yow damaa bëgg troisième mandat xam ni kii rek moo la ko mën a xañ nga ne dinaa ko écraser parce que nga def ko ci xalifa Sall mu neex. nga def ko ci Karim Wade mu neex nga ne da nga koy dolli. cest à xam nga intellectuel nga de. bëgguma nga wax fi waxu politicien waxu yooyu. no franchement bëgg dama bëgg no dama bëgg li ngay li dama bëgg li ngay wax nga teg ko ci teg ko ci lu leer. tout à fait waaw loolu laay xaar quoi bëgguma non bëgguma nga. Ah, teg moo tax ma ma bëgg laa expliquer nii dama bëgg nga teg ko ci lu leer. boo gisee nit ñëw. xam nga bi dama bëgg nga nga teg ko ci lu a a wala tubaab bi naan y a jamais deux sans trois nit ñëw paf def ko xalifa mu jàll def ko def ko l'autre mu jàll euh, def ko comment comment dirais-je def ko Karim mu jàll day defa ni yoonu toll la man nag ba mu jógee pour dal ci Ousmane Sonko man je suis allé voir pour man. Macky dafa jóg nii rek ñu day dal ci Ousmane Sonko. mais après gis nga nguur bu la bëggee wutal ay raisons pour pour dal sa kaw surtout opposant boo xamante ne xamoon na ni kii nii moom rek parce quand le un président taxaw à Thiès ne nous avons pour cent maintenant les quinze pour cent deviennent l'adversaire et donc 15 pour cent boobu nekk adversaire bu taxawee pour jàkkaarloog moom man dama ne dama ne woon Ousmane Sonko man de boo taxawee pour xeex man je serai je serai avec toi pour une raison très simple bu Ousmane Sonko daanu woon c'est la démocratie sénégalaise moo doon daanu. pour man la Ousmane bu président Macky Sall amoon ci moom lu mu bëgg dictature moo fi am boobaa benn régime moo fi am di def lu ko man. je suis né le 4 avril je suis né le jour de l'indépendance man la liberté pour man nit da koy xeex quel que soit le prix et je pense que xeex ak Macky moo gën a métti ci àdduna. xeex ak ba jàkkaarloog Macky Sall moo gën a bu doon xëy na àdduna wala yi demee noonu fi am na yoo xamante ni politico mën nga cee bañ a dugg. mais après tout ça je dis souvent qu'un intellectuel day xalaat toujours euh, bu ñu nettali Galilée. d'accord qui disait que la terre est ronde. Mhm. ba mu ba mu ba ko ñàkk bakkanam ci benn xam-xam kii bu mu gëm. moo je pensais que Sénégal dëkk la boo xamante ne waruñu nangu un président fort di écraser ses adversaires un par un. bon j'étais un peu jeune ci jamonoy Khalifa Sall ak Karim Wade mais je me disais que si buñ ko bàyyi mu continuer dictature moo fi am. ok alors Khadim kon da nga jàpp yow da nga bokk ci ñi gëm ni euh, mbiru Sweet Beauté complot la. mais loolu si xam nga bu dul loon complot ni ñaa ñu ñaa ngi ciy wax ba léegi te ay jullit lañu sax gis nga jullit suñu borom day àtte dama naan souvent Ousmane Sonko fi mu jógee bu ci yàlla tax tegul loxo du egsi fi loolu rek jàngat la fi mu jógee bu ci yàlla tegul woon loxo parce que am na ñeneen ñoo xamante ni dajuñu li mu daj moom li mu jël ci yaramam mais gis nga ba leen Macky Sonko da leen daaneel parce Euh, ça c'est chose la deuxième chose mais histoire la boo xamante ni ki ko taqal moo xëy suba balaa muy dem mu am na siye lu bëri dem yoonam y a des yoo xamante ni sa parle gis nga fii Pape man duma dugg ci vie privée nit demee naan lu ma Papa Ngagne di nëbb yàlla bu ma ko yëg du ma musuma gëstu ci nit yàlla bu ma yëg lu ma nit di nëbb vraiment nit ñi seen dund euh, ñoo yàlla la mais gis nga. politique Sénégal dafa demoon ba foo xamante nii les gens pensaient que nit ñi ay ay instruments la ñu kii neex na ma damay ànd ak moom kii neex ma dama koy écraser le moo écraser naa ko liquider mooyu salte yooyu dafa demoon ba occuper woon l' espace politique. et je pense que man li ma neex mooy quelqu'un dafa taxaw xeex au prix de sa vie respect boobu man la am ci Ousmane Sonko au prix de sa vie. et suñu borom seetaanu ko te gëm naa ne bu nekkuloon ci dëgg. non non au prix de sa waaye itam prix de de la vie de ñeneen. mais mais c'est c'est le. ba ñeneen mais xam nga. xam nga xaadim uh-huh. euh, dama bëgg ñu ñu ñu comprendre rente ci benn affaire man xam naa ni euh, intellectuel nga. Uh-huh. mais bi nga waxee bi nga cautionné complot bi dafa ma jaaxal bi nga jàppee ni liquidation la daf ma jaaxal parce que man li ma gis mooy benn sénégalaise la bu am problème ak benn sénégalais. Uh-huh. accusé ko li mu ko accusé li xew xew ci ay nit ñàkk ci seen bakkan. yow loolu yëpp nga bëgg a jàpp ni loolu complot la. mais xam nga bu doon ñaari Séné sénégalais lañ ñu bàyyi leen coow du am mais xoolal ñaari sénégalais yi un procureur jël benn dossier yokk ci lu ci bokkul assemblée nationale gaawantu pour pour génn immunité parlementaire am nga xool nit ñi dem ba liñ liñ daan daj bu kii ne nii laay jaar sax ñu ne ko doo jaar nii nga nga xool nit ki luñ ko chargé ci ñaari dossier yoo xamante ni. ñaari dossier boo xamante ni ñaari sénégalais gis nga bu ñu ko bàyyoon ci ñaari sénégalais yoonu kenn nekku ci. mais Papa Ngagne gis nga pour man être démocrate c'est accepter les les règles de la contradiction mais quand bu nit taxawee ne du ma am opposant mu def ko ci Karim mu jàll mu def ko ci Khalifa Sall mu jàll. gis nga bu jàlloon ci Ousmane Sonko mais xam nga yéen a ngi imaginer ban dëkk la ñu war a am un hmm. dictateur boo xamante ne day xëy suba nañ doom Khalifa la sama doom sama mooy sama truc. je pense que man. Ousmane Sonko. Mhm. au-delà de sa personne c'était pour moi la démocratie sénégalaise qui était bis bu daanu woon bu ñu jaaroon ci kaw Ousmane Sonko c'était la fin de la démocratie. ok loolu moom àllarba bi passé sa benn doomu baay bu ñu wax ma Madiambal Diagne fii la toog. mu ne Adji Sarr daf ko woon ko tonton lenn rek laa bëgg mooy dellu si Sénégal ba leeral suma diggante ak Ousmane Sonko. na dellu si na dellu si <laughs> na dellu man koo héberger sax dellu si gis nga dossier boobu Pape. ñi ci ñi ñi ci ñi nga gisoon ñu gën cee def nii bàyyi nañ ko parce que gis nga Pape Sénégal réyul fii les gens se connaissent fi nekk politique mun naa am l'aspect politique ñoom ñëpp ku ciy politique xëy na loolu moo gën a rey Macky Sall parce que dafa créer maintenant de hommes politiques yoo xamante ne au lieu que ñu wutee ay base politique au lieu que ñu wutee ay argument dossier Adji Sarr Sonko ci lañ nekkee ci lañ amee xaalis dossier Adji Sarr Sonko ci lañ amee euh, benn kii politique Adji Sarr amoon nay nijaay amoon nay tante. Ah, mais ah, léegi am na ñoo xam ci lañ amee voilà mais am na ci xam ci lañ amee pouvoir tout à fait ci lañ ci lañ nekkee premier ah. ak loxo yàlla d'accord xam nga loolu euh, parce que état mun laa teg loolu yëpp. ok génn ci. ok man pour man suñu borom bu ci gis nga am na loo xamante ni pap loolu loolu c'est ku am ngëm ko suñu borom euh, am na loo xam bu la ko doomu aadama tegee suñu borom fayale lii man du mus mënumaa gëm ni nit dina tooñ def loolu ay bakken dee ci yàlla fay ko lii ñàkk ñàkkoo jiiñoon ñoom ñëpp dem exil ok d'accord alors. Euh,